laaj bi nga xam ne moom moo jiitu lu bëri ci mbiru Régis Bogaar la nan ndax mun nga ci dellu Régis bi nga xam ne liggéey naag yow ay at yu bëri. waaw lu ma mën a wax si Régis rek mooy euh, di ko di ko di ko sant di ko di ko di ko gërëm je crois que tey euh, pendant dix ans maa ngi cheminer ak euh, ak moom loyautéem gis nañ ko xarañteem gis nañ ko professionnalisme gis nañ ko bëgg réew mi te nekkul sénégalais tamit gis nañ ko. Je suis du depuis l'âge de 13 ans Donc, je me suis donc bi ma décidé def me voie bi nga ne sais pas entraîneur je suis keneen mu nekk sama adjoint ku dul parce que je suis pratiquement mon moo formé Donc, si je bi vraiment euh, très ouvert 30 ans d'expérience euh, lépp lu mu amoon lépp lu mu yoroon jox na ko Sénégal vraiment tey ñu ngi koy sant ñu koy ñu koy gërëm au nom de tout le peuple sénégalais vraiment pour lépp loo xam ne def na ko ci ci ci ci réew mi voilà di ko santal vraiment di ko ñaanal vraiment fu mu jëm gënal ko fu mu jógee.